mbégte la ñuy am yéen mbokku internet yi di jàkkaarloog yeen ci sen euh, chaîne Dakaractu TV rawatina ci émission bi di en ligne ñu koy defee ci studio bi nga xamné ne yàgg na gisu leen woon ci biir studio bi ñu fi réaliser numéro en ligne liko ko mom modi 18 safar biñ doon wajal nekkon ci Touba Mbacké dëkk bu sel bo ci liggéeyu señ bi. tey jii nii nag ñu amaat privilège bu mag a mag dikkaat ci bi studio bi ba léegi nekkaat ci prorogation màggal bi wante nag tey dañuy waxtaanee lu am solo ci màggal bi di wàllum ndox ñëpp xam nañ ne ujaaj yi jóge ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp di dem ci dëkk bu sell ba Touba Mbacké ñaare bëri na lu bëri lu ñu soxla ndox ngir jëfandikoo ko ci ay activités yi nga xamante ni moom la ñuy def foofu noonu ngir waxtaanee li ni mel nag dañu am euh, mbégte bu baax a baax dalal office des forages ruraux maanaam OFOR ñoom la nguur bu Sénégal euh, dénk lépp lu jëm ci cëddale ndox mi ci walu gox yi goxaan ngir nak waxtan ci li nu mel tay dañuy dalal euh, Ndiamé Diop mom modi directeur bu contrôle ak exploitation ci douane Ofor Ndiamé Diop am nañ mbégte bu baax a baax di dalal ci sen euh, émission en ligne. wa jërëjëf merci ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooloom internet yi suivre Dakar Actu mhm. di leen gërëm également si. ànd bi ngeen ànd ak OFOR. Mhm. ay at a ngi ko jàppale si liggéey bi nga xam ne moom lay def jëmale ko si askan bi. tout à fait alors euh, maa ngi koy wax léegi yow lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu wàllub contrôle ak exploitation euh, ci OFOR loolu ku ko wax ne xam ne ndox mi dëgg-dëgg lañ la dénk ci sa direction bi nga xam ne moom la ñu dénk. alors euh, alxames ji la am une semaine gannaaw ba ñu màggalee ba pare tey jii ci gàttal boo ñu doon wax matuwaay yi nga xamante ni gannaaw jël ngeen ko lan lañ mën a jàpp ci cëddaleem ndox mi

nguuru Sénégal à travers le ministère ak l'OFOR door nañu liggéey bu yàgg def nañ fa bu am solo pour faire ba ña fay ñëw ba ñu am ay jafé jafé ndox liggéey ban ko dooyee yag na mën naa ne début d'année nañ ko door mo am ay li wax un plan d'action bo xamné dañ ko tabaxone fexé élaborer ben plan d'action bo xamné biñu génné ci magal bi passé suivant constat yi ñu gis biñu xayma magal bi passé lañu gissone comme jafé jafé ak recommandation yi nga xamné ne autorités yi kilifa yi organisateurs yi defoon nañ ko mom yop nañu bolé tënk liñ wax un plan d'action pour màggalu ren bi plan d'action bobu nak dafa am ñaari patch muy la phase préparatoire moy li nga xamné dañ ko wara a def bala événement bi di ñëw ak la phase de couverture moy fan yi nga xamné moy magal bi taxaway bi ñu am euh, loolu moo nekkoon taxawaayu OFOR si événement bi mu nekk nag euh, si phase préparatoire bi am na ay liggéey yu am solo. yu fa def bokk na si damay dama si lim ñett rek. mooy li ñu wax le renforcement de la de la de la capacité de production des ouvrages mooy fexe ba dooleel forage ba ndox mi gën génn. gën a bëri. moo tax ba ñu renouveler ñaari forage muy F3 F5 ba pare rééquiper maanaam changer.

bokk na aussi ñu travaux de densification à l'intérieur de tout Touba. monde. Mhm. yokk jokkale ay ay tuyaux pour fexe ba fi du am pression wala fi nga xam ne dafa nemmeekoon ay difficultés mu mën a saafaraw mhm. beneen bi nag ñetteel bi mooy les travaux de sécurisation et d'entretien maanaam fexe ba entretenir l'ensemble des ouvrages mhm. ak sécuriser aussi l'approvisionnement en eau le jour du Magal loolu moo nekkoon phase préparatoire bi bi si jógee ñu dugg li la phase de couverture nous déployons des moyens énormes mhm. vraiment humains matériels logistiques pour couvrir l'événement Quelle euh, ci phase de couverture L'intervalle, noonu intervalle bi euh, ñaata jour la ci ci kañ lay démarrer ak généralement phase de couverture on le démarre 7 jours avant le magasin une semaine avant. avant mhm. et un jour après jusqu'à un jour après le magasin mhm. donc on euh, nañ fa samedi vendredi samedi on fa là ba ndaxte léegi nit ñi dañuy On est là, dañuy est là dañuy Envoyer envoyer équipe bi ñu waroon envoyé yëpp envoyé matériel bi ñu waroon envoyé pour mën a am taxawaay les les les dix jours yi nga xam ne mën assurer la phase de couverture. Euh, phase de couverture bi nag euh, nekk na loo xam ne aussi am solo parce que boo xoolee durant la phase de couverture au fort, mu déployons si personnel toll na si soixante dix agents cent trente camions citernes. quatre vingt bâches à eau. Par une personnel boobu fexe ba mettre en place des équipes de surveillance des installations. Mhm. fexe pour fu panne amee ñu mën ko réparer fuite panne au niveau des stations mais aussi mener, gérer coordonner l'ensemble des activités liées à la ravitaillement en eau avec les camions citernes. Mhm. loolu mooy maanaam taxawaay bi nga xam offert OFOR taxawoon na ko ñu gis na a euh, am nañ ay résultats yu am solo. Mhm. Euh, yo notamment avec les travaux de maillage, le renforcement de la capacité de production d'ailleurs. Mhm. On est maintenant à 112 000 m3 jour, uniquement avec les forages. Bon, si vous les, la production additionnelle, à partir des réservoirs à, travers les suppresseurs dans le total, c'est 130 000 m3 jour. ce li est euh, maillage yi extension de réseau yi nous def réglé na régler problèmes notamment au niveau de Darou Manane. Jannatu mhm. Madiana vraiment am nañ fa ñoo xam ne daaw ñu la d'ailleurs am na ay témoignages yoo xam ne nit ñi def nañ ko ñoo xam ne daaw ñu am ndox mhm. ay weer ay at bi ñu defee travaux yooyu tax nañu am ndox donc loolu nekk na si résultat ñu am bokk na si aussi euh, les points li ñuy wax les les les postes avancés mhm. parce que bu njëkk ba ñëpp ñu doon laaj camion citerne doon ñëw au niveau de la sous-préfecture mhm. ren dafa am coppite yu si indi dañu ne gisoon nañ ne jafe-jafe amoon na au niveau de la sous-préfecture parce que nit ñi dañu jóge fu sori di ñëw nga war a programmer la camion mu dem roti jóge fa dem fum fum wara ndox. Mhm. c'est une perte de temps cest fi doon créer ay problèmes ñu ne léegi dañuy créer wax des postes avancés pour se rapprocher gëna djégé askan bi moo waral ñu ubbi ñet poste mhm. en dehors en plus des du poste de la sous-préfecture muy poste Madiana qui est qui a été implanté au niveau de du F8. Mhm. ici de l'université benen poste bi moy Darou Khoudoss moy def ñu defoon ko au niveau du forage de Baylaat F1 benn bi mooy fi ñu logé fi ñu fi basé ñun suñu service fu nek nekk F3 Ndaamatu mhm. loolu taxna ba pratiquement lañ doon gis nit au niveau Assur'Futur amatu ren ñep dañu mujj dem ci poste avancé yoy mhm ñooñu géré leen directement ba pare dafay gaaw dafa gënoon gaaw. tout à fait loolu aussi c'est des avancées yoo xam ne kii nañ ko gis nañ ko ren. Ah, ah, absolument alors muy muy ay investissement yu yu yu colosso yoo xam ne wax nga ko euh, ngir ñu mën a mettre à l'abri de Touba ci ci ci ci pénurie d'eau euh, wala yenn ci ay euh, ñàkkum ndox mais terul ne investissement yi ngeen def yëpp ak li nga xamante ni moom moo di euh, densification réseau bi ngeen wax yooyu yooyu yëpp ak li ngeen def ci Touba à chaque fois màggal bu amee dinañ nemmeeku ci yenn ci ay poches yoo xam ne dañuy dégg ne amul ndox nun lu xew lan lan lan moo tax ba léegi ak malgré waxuma sax forage li mu forage parce que mën naa jàpp ne tey li mu forage ba ne ca ya ci Touba newul cax ci ay régions yu bëri fii ci biir Sénégal teewul ne toujours di nga nemmeeku yenn ci ay poches ay quartiers yoo xamante ni dañuy dañuy dañuy am jafe-jafe ndox euh, li nga wax dëgg la li nga wax dëgg la. boo xoolee tey forage Touba yi lim bi takku na lool. Mhm. toll na si fanweer forage yoo xam ne ñu ngi Touba. di mhm. produire actuellement. et durant tout le Magal tous les forages ont fonctionné. amul mhm. benn forage bu taxaw bu am jafe-jafe. forage yooyu nag ñoom ñooy assurer production wu Touba. mais production boobu dafa am fu mu war a jaar pour yegg si askan bi muy li ñuy wax le réseau réseau bi ay ay tiwa la ñu tëral suul ko lëkkale ko ñu wax la réseau maillé interconnecté moom nañu moom moo am tuba moom moo mën a tax ba nit ñi di jot ndox mi mais réseau boobu dañu nemmeeku ne dafa bëri ay jafe-jafe mm. dafa bëri ay jafe-jafe parce que réseau la boo xam ne yàgg na et aussi il euh, y a eu beaucoup d'intervention maanaam liggéey yi si def dafa bëri mm-hmm ba pare aussi euh, ba léegi réseau bi dafa des xam-xam bi ñu ko war a xam dafa des maanaam euh, dafa bëri ay fuite dafa bëri ay tiwo yoo xam ne màgget nañu war ko remplacer remplacer guñ ko. Mhm. ah dafa bëri ay intervention anarchique mooy ñi ñi war woon laal réseau bi di ko laal. Mhm. loolu yëpp moo tax ba tey réseau bi nekk ci melokaan boo xam ne dafay jafe trop pour nga gérer ko loolu nag lu bëri si jafe-jafe yi am ren. ci mhm. loolu la jógee parce que bo xolé production bi actuellement waxuma né waroon na doy à doy na à 100 mhm. mais quand même bu fekkone ne réseau mel na lu mu war mel problème yi ñu ko ren. Mhm. xëy duñ ko némé ko

est-ce que jotul tey jii nii ngeen mën see jël solution urgente comme génn ngeen ci magal bi war a préparer bi nga xamante ni moom mooy ñëwaat pour que euh, déwén buy am sax duñ waxati waa waxu réseau. Mm. wala buñ koy wax sax dina fekk am na une nette amélioration boo xamante ni yaakaar nañ ne bu amee dina indi saafara su bëree bëri ci ñàkkum ndox mi ca Touba. bon li nga li nga wax dëgg la je crois que aujourd'hui suñu effort yëpp daanaka fas yéene nañ kaa def si réseau bi. Mm-hmm. incha allah feeg déwén. Mm-hmm. Euh, réseau bi li nga wax dëgg la chaque année gis na ne réseau bi am na problème yàgg nañ koy wax. ren moo waraloon ren ñu def travaux yooyu ay maillage ak yooyu pour améliorer yenn yenn yenn kii réduire les difficultés mais euh, déjà jot nañ ay instructions jot nañ ay instructions di des autorités pour ñu commencer liggéey ci réseau bi. Mhm. maanaam fexe ba def benn étude benn audit du réseau. audit maanaam saytu ko. Mhm. xool réseau bi xam. fépp fo xamne Tiwo jaar ñu mën ko xam ak nu mu tollu ak naka la mel fexe ba aussi identifier manam fexe ba xam jafe-jafe yi am ci réseau bi pour mën ko safara lool nak étude lay laaj mak bo xamne xam ne war ko mën def ci réseau bi pour mëna vraiment saytu ko xol lepp lu mu laaj ci liggey pour yeesalat ko waaw étude la laaj na koppar tamit bu bëree bëri bu bëri est ce que tey effort taxaw na euh, pour am li nga ni moom la war a dugal ci ci ci ci liggéey ni mel bon am nañu yaakaar ne naam sax nit ñaa ngi naan bëri ngeen xaalis trop am nañu yaakaar ne mhm. euh, autorité daañu accompagner mhm. parce que déjà ñoom ñoo joxe ndigal boobu mhm. moo am yaakaar ne bu ñu tolloo vraiment autorité daañu accompagner pour réaliser cette étude là

est-ce qu'on peut s'attendre à ce que étude bi ngay wax ñu daal di ko réaliser avant Magal bi yi jëw incha allahu rabi ñu bon c'est pas évident genre étude une nga mën ko boucler. Mm-hmm. tout à fait en une année. c'est un processus c'est un processus assez long. Mm-hmm. et même vous ñu ko aussi dañ koy phaser. bu nekk loo xam ne dañ koy mën a def. Mm-hmm. defandoo am wax les les travaux d'urgence à court terme. Hmm? et aussi les travaux à moyen long terme. mais ñun li li ñu fas yéene def ren identifier le programme d'urgence d'abord à côté. Mhm. boo xam permettre ñu dugg ci 2020 inch'allah, allah. gérer le magasin 2020 sans problème ba pare nag à côté une étude globale. Mhm. boo xam après à partir de cette période nous ko dérouler. Mhm pour mener les, différentes actions qui ont été identifiées. Tout à fait. Alors, euh, Ndiambe Diop, euh, Moudi directeur du contrôle et euh, exploitation de OFOR, c'est le c'est numéro bu yes en ligne bi waxtan un peu le bilan sur euh, l'approvisionnement en eau ci Touba qui bir Magalbi. Alors, monsieur le directeur, je vous donne waxtan un ak nos collègues. collègue au-delà de l'eau c'est des humeurs également à gérer à bas. parce que zone bu sensible la euh, ci ay ay gens doomu dalal te kusi ndox rek gens euh, téléphone mhm. te ku na il faut gérer alors relation ak ñi nga xamante ni ñooy les chefs religieux yi nga xam ne ñu ngi ci les différentes localités bu Touba est-ce que c'est huilé nan ngeen géré yooyu noonu en général. bon ben je crois que les relations sont huilées hein. je crois mhm. que parce que bii du suñu première édition. absolument yàgg nañu géré Magal depuis que OFOR taxaw na. Mhm. en 2014 ñu ngi géré ay Magal te boobu léegi euh, ay relations yu baax nañu am ak les autorités. Mhm. lépp lu ñuy def dañ si waxtaan ak ñoom. boo xoolee même durant la phase préparatoire dañu dañu dañu dem ba Diourbel partager le plan d'action. action li wax le plan le plan d' action li nga xamné ne yéene nañ ko def fofu mhm. dañ ko partager avec les acteurs. Mhm. que ça soit les autorités maou Rahmati la commune. Mhm. partager ak ñom wax leen ne li moy suñu yéene ren li ñu wara def. jëlaale en compte aussi ñom seen xalaat. leneen li aussi moy lepp lu ñu def fuñ ñu toll aussi à chaque fois. dañuy rendre compte aux autorités ñi nga xamné ne nañ ñu booleel pour ñu liggéey ak ñom aussi dañu am de bonnes relations on travaille ensemble. Mhm. lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo ensemble. Mhm. muy maaw ak aussi les responsables de du comité d' organisation. Mhm. liggéey bi am na solo te liggéey bu bëri la ci ci ci biir Touba ci ci période màggal bi yaa ngi wax sax euh, nombre de d' agents yi nga xam ne moom ngeen di déployer sur le terrain ci màggal bi mais est-ce que rek doyna na ndax daf ngir def liguey bobu yëpp ci ci ci ci magal bi. déedéet du du offer rek moo def. Mhm. parce que bo xolé biñu biñu duggé biñu biñu bi magal bi ñu dimbalee ci magal bi. Mhm. toujours dañuy solliciter suñu ay partenaires ñi nga xamné ne ñu ngi liggéey ak ñom mhm. muy CEO muy SDE ñoo ñep dañuy appuyer. indi sen ay équipe jàppale ñu si liggéey bi. lénen li aussi moy Mawo aussi fay participer ci liguey bi du offer rek. en plus de ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les services régionaux. Absolument. Il ils dépendent directement du ministère. Nous mhm. aussi, tous les agents sont mobilisés vraiment pour la réussite de l'événement. Mm -hmm. Donc, du tout, nous avons euh, ben, note de service pour réquisitionner l'ensemble des agents qui ont fait intervenir. Beaucoup les agents de l'OFOR, mais également les agents des services régionaux. Mhm. les -hmm. Absolument. Alors, euh, le cas de Mao, nous avons parce que. Euh, gis nañ maaw seen liggéey ñoom ñoom ñoom ndox mi ñuy def c'est c'est un peu commercialisé liggéey bi na lay demee ak effort yéen ñi nga xamante ni yéen a ci service public bi li ngeen di def c'est un peu gratuit comme Touba xam nañ ne euh, gratuité de l'eau la ñuy wax foofu noonu seen liggéey ak maaw gis nañ ne yàgg na trop collaboration bi c'est saine euh, nan nan nan nan nan nan lay demee liggéey boobu noonu. xam nga baax na aussi ñu fàttali ne maaw. Mhm. Euh, maanaam c'est le autorités administratif religieux ñoo ko fi teg ñom ñoko fi tek pour ñom ñuy saytu lepp lo xamné ne dafa jëm si mbirum ndox donc ñun biñ ñëwé également c'était normal que ñu travaille ak ñoom mhm. et je crois que relation comme ni nga waxé légui c'est des relations saines mhm. et Mao aussi euh, am na taxaway bu wour bu rafet bo xamné ne dina koy def durant le magal euh, ñom ils interviennent beaucoup également amna lu bëri lo xamné dañ kay def en termes d'investissement, parce que am na forage. des fois ñu jënd équipement. des fois aussi nous intervenir au niveau du réseau. et aussi ils appuient les, nos services, l'unité de maintenance de Touba, bas dans tout ce qui est travaux d'entretien, de maintenance du réseau et des équipements d'exode Donc vraiment, Mao, à ce niveau, vraiment, intervient beaucoup. L'année moi, euh, euh, aussi de temps en temps xamna né peut-être balaa benen magal bi di ñëw daañu rencontrer, rencontré pour mhm. d'abord faire l'évaluation du magasin, mais également mener une suñu collaboration. Ah, naka la pour en tout cas pour mu jëriñ mhm. alors euh, réseau mais également ci comportement yenn nit ñi dañ naka branché ci yenn réseau d'une façon clandestine est-ce que ci opération yi souvent il vous est arrivé palpable ngeen gis yoo xam ne dañ ko saboté wala qu'il vous arrive ngeen teg ci loxo ay nit yoo xam ne leer na leen nii dañoo ñëwoon pour saboté wala ngeen gis cas yoo xamante ni war na leen lii acte de sabotage la pour vraiment ternir l'image de l'OFOR wala yàq seen liggéey ci ci ci ci màggal bi. bon man bu ñu waxee yàlla rek man mosuma ko gis. Mhm. en tout cas ñun mosaguñu ko gis. tout à fait bon même bu nekkee wax nañ ko aussi man ñun mosuñu ko gis gisaguñu koo xam ne rek jàpp nañ si loxo nañu kii da doon saboté wala kii da doon def noonu. Mhm. Euh, xam nga nag li ma doon wax sànq intervention anarchique et incontrôlée sur le réseau kooku dafa dafa dafa yaatu du mën a nekk mën na bañ a nekk acte de sabotage mais nit ki dafa bëgg ndox mais dafa am fu war a jaar du fa jaarul gas bëtt kii bi rek def na lu def na loo xam ne du yoon te loolu nag moo bëri ba pare la muy utiliser parce que bu ko defee mhm. matériel bu muy utiliser mënoo ko certifier ndax matériel bu baax la travaux yi muy def mun wóoru la nak travaux yi jaar na yoon. loolu moy moy indi problème ci réseau bi. loolu nak mo laaj ñu moo mo waxe ma waxtaan bi ñu wara a waxtaan ak maaw. Mhm. loolu bokk na mhm. pour ñu xool nak ñu organiser wat tout ce qui est demande de branchement. Mhm. travaux de branchement travaux de raccordement ak extension sur réseau bi pour réduire ces ces problèmes là sur le réseau. D'ailleurs, ailleurs bi def la réunion d'évaluation avec le ministre de l'Intérieur, je je sais pas ndax yaa ngi fa le ministre de l'Intérieur intérieur na ci pour wax ne maaw foog mu les procédures en termes d'autorisation pour les branchements mhm. mais aussi de contrôle et de réception des travaux de branchement mhm. pour certifier ces travaux là vous wóor ñu liggéey fii ça respecte les normes mhm. et aussi la utiliser comme matériel baax na loolu nag la pour vraiment préparer en tout cas euh, mu

parce que mm. aujourd'hui on gère près de 2000 forages. 2000 forages à travers tout le territoire. Mm-hmm. donc fou forage pané, ñun ñun mm-hmm. donc l'ol mu moyen de Beaucoup mm-hmm. le développement de l'accès Maintenant, ba. ñu am ndox. nga bokul aussi ak ouvrage yi nga xamné magat nañu. Mhm. dem nañ bu tu nga wala renouveler. Mhm. nga war ko jël aussi en compte. yooyu yëpp ay demande la xam nga loolu yëpp ay demande la. Mhm. lolu dafa laaj koppar bu bari bari bari moyen, moyen des moyens importants. euh pour wax né am nañ ko du man la am nañ ko aussi du waxuma lu am. mais partenaires yaa ngi fi ñu ngi ñëw. waaw d'accord ah. les partenaires sont là. mais les partenaires aussi mono dépendent à 100 des partenaires. tout à fait nous la defal lépp. Mhm. ñoom dañuy ñëw suivant ay axes d' intervention rek intervenir ne nous lii fait def. lii mhm. Mhm. ñuy def on introduit des requêtes. à chaque fois on présente des documents. introduit des requêtes au niveau des partenaires mais à chaque fois ñu introduit nekkul ne chaque fois nga introduit mais par contre am a vraiment l'appui des partenaires. plusieurs partenaires d'ailleurs que ça soit les partenaires traditionnels. tels que la Banque mondiale, BAD, les Japonais, Coréens, mais également dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons aussi beaucoup de réalisations maintenant li aussi mooy état aussi l'État fait beaucoup d'efforts hein, mm -hmm. pour vraiment accompagner le fort mm -hmm. donc bon xoolee tey lépp lu ñuy réaliser su bëri état moo koy def si budget bi en plus maintenant de l'intervention des des, des partenaires mais comme ni nga waxee rek liggéey bi dafa vraiment koppar yu bëri mhm. euh, loolu xam nañ ko état bi ko à chaque fois ñu ngi koy mais dara mënul tëb a nous mhm. ñu ngi dem on, on, on avance mhm. nous avons jéem en compte les préoccupations des populations au fur et à mesure mhm. ba pare aussi aussi si am on essaie de corriger les disparités C'est ce gën Nous am solo mhm. Nous des zones des zones vraiment défavorisées ñu fexe ba foofu ñu réaliser ay projets pour vraiment corriger ces disparités là. tout à fait alors au euh, buñ ci desee ba que tey jii euh, mission bu vous avez mag bu nga xam programme bi ngeen di présentement euh, programme mhm. le programme chinois financé. 300 forages voilà C'est mhm. vraiment vraiment programme bi mac, mhm. pratiquement à la fin du programme. le programme financé par la Banque mondiale du Amir, dans la zone centre. c'est un accompagnement de la Banque mondiale pour la prise en charge des travaux de remise à niveau Madame fexe forage nous ñu les opérateurs mhm. ñu yeesalaat ko mhm. parce que bi ñu fait inventaire état des lieux mhm. maanaam balaa ngay jox nit ki dara partenaire yi les les fermiers voilà voilà c'est bon à savoir parce que nous sommes dans un processus de réforme réforme bi que li ñuy déléguer les forages à des opérateurs privés Madame, dënk leen forages des ñu exploités, si ou 10 ans nous avons ñu des lois sur la base d'un contrat d'affermage processus est nag nous ngi fait, au fur et à mesure aujourd'hui le CO démarré depuis juillet 2015 mhm. Aquatec démarré en 2018 mhm. en 2019 am na ñaar démarré muy euh, Soges mhm. dans le Tamba et aussi FLEXO dans le Kaolack Kaffrine donc nous avons fait nous def li ñuy wax état des lieux maanaam dem si forage bu nekk ak opérateur bi xam lan moo fa diagnostic bi diagnostic mhm. identifier les travaux qui nga xam ne moo war pour ñu yeesal équipement yi. Mhm. ñu tënk si benn document évaluer ko budgétiser ko. Mhm. bi a ko defee gis na ne ay milliards la ko proposé banque mondiale mu nangu accompagner fort donc pour prendre tous ces travaux là en charge valeur pratiquement 20 milliards vraiment lu am solo la donc banque mondiale moy vraiment moy programme bi gëna mag aujourd'hui bo xamné mom moy mooy déroulé wu actuellement au niveau de l'OFOR mm-hmm. alors euh, gis nañ nañ fi yenn ci ay euh, polémique yo xamanteni dafa juddu won ci création OFOR ak ñi nga xamné surtout ñom ñoy les AGIFOR tey jii ni fan la tollu est-ce que tey ils se sont remis xam nañ lan moo mission réelle bu OFOR parce que gisoon nañ fi à chaque fois munoo taal télé te génnuñ ne waaw dañoo bëgg jël ki bi privatiser ko ñu ñokoy gérer suñu bop ak yoy nonu euh, akalmi amna wala ba léegi ñu ngi si. xam xam nga dafa am terme bu ñuy faral di di di wax muy privatisation c'est une professionnalisation. du secteur du secteur professionnalisation de l'exploitation. Mhm. dañu dañu dañu jël exploitation bi professionnaliser ko jox ko ay professionnel. né leen gérer lé mhm. lool rek mo changé. Mhm. mais ouvrage yi toujours ngourbe ko mom privé bi day exploiter rek. bu paré rek délo ñu bari nak dañu xaw a réer mbir loolu.

si jafé jafé yoyu, nañu sukkandiku won état jël décision. né li waruma tok continuer di xol li muy dem parce que boba aussi état moo koy supporter. absolument mota état jël dogal. né mhm. donc day professionnaliser l'exploitation. Manam jël exploitation forage deunk dënk ko ñoo xam ne seen liggéey seen xam-xam mànc dem si ñu mëna yoré yore forage dawal ko population yi mëna tok ñom vraiment ñu ñu ñu jox leen ay services de qualité comme dans l'urbain. Mhm. dans l'urbain amul ben usage bo xam nga tok di xalat fa la ndox mi joge naka na une loolu mhm. yow li la war mhm. li nga lan yow li nga bëgg mhm. mooy nga ubbi en milieu vraiment un service de qualité xam ne fi mu nekk genre préoccupation des populations forage panne war nañu de pompe war nañu def li non non ku si nekk toog sa kër boo sa robinet ndox nga les mêmes qualité de service que ñu am en urbain qualité d'eau. tout à fait on s'achemine euh, vers le gamou. Euh, Magal sax mën nañ mais am zone yu gamou, on xam dañ fay ku ci mel ni bo Kaolack Ndiassane ak est-ce que d'abord yéen da dans intervenir ci zone vous noonu yéen yéen a yor euh, contrôle bi comme ni ngeen ko yoree Touba si oui wala bu fekkee dédé est-ce que amna djégo yo yoo da ngeen fay def tamit pour ñëw en appoint. je crois que le Sénégal xam yo xam nga ko y' a y' a deux périmètres. y' a mhm. l'urbain et le rural. Mhm. l'urbain c'est la SONES. Mhm. qui a signé un contrat avec la SD, mais xamné mom ne exploitant bi. ñun aussi le rural.

bokk na si SDE. bokk moom danañuy jàppale bu baax. si li nga xam ne moo jëm si pro problème qualité de l'eau maanaam saytu les unités de coloration. pour eau de javel bu ngi war a def si ndox mi. danañu aussi pour la détection des fuites parce que ñoom dañoo am ay appareils yoo xam ne dañ koy utiliser pour détecter les fuites. pour permettre à nos ouvriers de réparer les fuites avant le magal. loolu am na si jàppande bu wóor la SDE. CO aussi la même chose day indi déployer équipe mhm. yoo xam ne dafay toog durant toute la période du magal. Mhm. avec des moyens logistiques et tout. Euh, aux efforts aussi mhm. donc nous pratiquement beaucoup de partenaires nous appuient durant cette euh, durant ces événements. Mhm. mais aussi euh, aussi ñun nous dans l'urbain mhm. les événements phares yo xamné que moy am. en milieu urbain muy les gamou de tiawon de de de de hein, Ou wala c'est la SD qui gère, parce que c'est le périmètre de la SD. je suis responsable de la gestion de l'exploitation du service public. Mhm. donc nous gérons l'événement à Bobo, mais nous, on vient en appui comme nous, mhm. on vient en appui Nous, mhm. sunu nous matériels nous ñu am. boo jëlee Tivaouane daañuy déployer quelque chose comme 25 à 30 camions citernes on le met à la disposition de de la SD. ak bâche pour accompagner euh, c'est événement Si on aussi si niasseni la même chose. Mhm. c'est la même chose. absolument mais vous ça se passe en milieu rural dans le périmètre rural ça c'est l'offre mhm. qui gère comme Tianaba, comme Prohan, comme Dakar de Médina mhm. vraiment c'est l'offre qui gère. mais tout ce qui se passe en milieu urbain dans les centres urbains c'est la SDE mais avec l'appui de l'offre en moyen en logistique. deux petites questions nga répondre aussi rapidement dem magal kenn du wax wax problème ndox. bon dana jafé wax. Mhm. Hmm? mais euh, fas yéene amna na lu yéene. Mhm. Hmm? fii ak dëwën incha allah 2020 rek du fekkee ne mën nañu dérouler dérouler le programme d'urgence bi nga xamné bo moom wara def. Mhm. coono yi dana wàññeeku bu baxa a baax hmm maintenant le plan direct directeur bi nga xam mom lañu bëgg a def mhm. l'audit du réseau et des infrastructures de manière générale mom mhm. rek moo ñu permettre nak ñu fexé ba en tout cas ñu régler définitivement les problèmes yi nga xam gis nañ ko si si euh, en tout cas les les ouvrages de Touba mhm.

xam au moins effort bi ak li ngeen di déployer en terme d' argent pour mën a satisfaire wala jéem a satisfaire ñi nga xamante ni ñoom ñoo di usagers yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw Touba. xam nga xam nga xam nga fu askan bi di dajaloo mu nekk lim bu takku ñu wax ay ay cinq millions. Mhm. loolu lépp loo fa def rek da nga fa war a def. tuuti na tuuti na. Mhm. donc amul dara loo xam ne rëy na pour loolu. Mhm. wa rawatina nag mu nekk Touba mu nekk dëkk bu sell. Mhm. mu nekk événement phare aussi un événement national. Mhm. pour wax rek ne euh, lépp loo xam ne ñun ko généralement dañ ko ci def déjà sur le budget national dañ ciy inscrire de manière très claire pour la gestion de Touba. rubrique boppam la. waaw yooyu dafay am. Mhm. bu ñu xaymaa en tout cas édition yi ñu génn yëpp les trois dernières années. li ñu fay def danay toll ci 700 800 millions à 1 milliard. Rien que pour le tourne pour pour la gestion du Magal. En prenant en compte, bien entendu, la phase préparatoire, mhm. la phase de couverture, le déploiement du personnel, les réalisations qui, sont, qui sont faites durant

bu loolu weesoo aussi di gérants, en tout cas ñëpp ñoo xam ne jàppale nañu ci magal bi. Mhm. nos partenaires euh, les acteurs. Mhm. Euh, que ça soit la commune Maawu Rahmati. Mhm. même les bonnes volontés qui ont intervenu pour jàppale OFOR ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen si vraiment c'est un apport durant ce magal. Nous avons la yombul lu lu jafe la parce que fu ay juróomi millions yi daje yombul pour nga assurer un approvisionnement en eau correct. nous du fekkee réseau bi nga xamné da ngay gérer moom ngay gérer bari na ay jafe-jafe waye nak suñu yéné moy vraiment euh, képp ko xamné ne nga magal rek nga baña am jafé jafé mhm. lool motax tax lépp loo xam def nañ ko comme moyen rek xeeb nañ ko mhm. waaw lool nak motax ba liggéey bi aussi na continuer mhm. fas nañ ko na liggéey bi comme nima ko waxé légui def un programme d'urgence vraiment pour déwén mais également faire un audit global du, du réseau et des infrastructures pour vraiment euh, régler définitivement les problèmes yi nga xam ne nemmeeku nañ ko effectivement alors mu doon Ndiamé Diop moi directeur bu contrôle ak exploitation bu OFOR di office des forages ruraux On la ñu dans dalal ci numéro US bu en ligne bi ngir def un peu le bilan. ci magal de Touba bek li nga xamante ni jëloon nañ ko ci comme matuwaay ngir jox askan bi nga xam ñom ñoom ñoo fa ñëwoon euh, jëloon euh, ñëwoon ngir jox leen ndox bu sel ci ni nga xamante non lañ koy jëfëndiko ci magal bi gërëm ko sant ko bu toute l'équipe de l'office des forages ruraux en commençant par le directeur Diko ko Santuko sant ko bu directeur yi fa euh, chef de division yi fa nekk yëpp yu ci mel Mamadou Diokh également Pape Sambou Niang bi nga communication bi moo aider aidé à la réalisation quand même de ce numéro ah gërëm ko sant ko bu également un yeeg que yi nga xam ñoo nekk ci suuf dimbale ma ngir ma préparer présenter également numéro émission en ligne bi jox len dig dajé filekki ak bés ak ñeneen invité d'ici là comme ni ma koy waxé rek l'information continue sur la référence Dakaractu merci. merci merci DG merci. merci bien.